asalaamaaleykum wa salaam. tey ñu ngi fi Ouest Foire kër Cheikh Alassane Sène ñu gën ko xam ci Daara Yàlla bi di surtout Ahmadou Ba de Ndande di doomu journaliste bu doon wax Najib Sène. sëñ bi ginnaaw boo nuyoowee ñu laaj la euh, kañ lan la seexal ak cheikh bi fan la jóge ñuy sant yàlla bu baax di julli si yonent bu tedd bi. sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu laaj yi ngeen di laaj mais dama yaakaar ne cheikh bi sax moom dafa toftalu ci suma tur mais du amul sax solo may expliquer cheikh bi parce que suñ ma waxee Alassane wala ñu yokk ci yëpp benn l'essentiel li am solo mooy ñi ngi bëgg saa su ne di di di des di dund di dee ak di dekki ci taalibe yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa loolu mooy li li gën a kawe ci suñu dund des aussi euh, di ñaan yàlla di des aussi di doon euh, serviteur u ñi nga xamante ne ñoo daan tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk seen ginnaaw ba ba faaw di di waxtaane seeni jaar-jaar euh, lépp rekk ngir gën a fexe ba doomu aadama yi seeni xol seeni xel seeni ruux aussi di des si di di euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. pour euh, dimbali néew di doole yi ñu bëggoon xam fondation bi euh, noo ko taxawalee ak nu muy fonctionner. fondation bi mu ngi mi ngi yëngu bu baax ci réseaux sociaux yi mais en même temps aussi ñu ngi def ay ay wàllu yëngu ci dimbali néew di doole yi ak di dem ci hôpitaux yeeg ak orphelinat yi. di xool nu leen mën a dimbalee ginnaaw bi ñu xamee sayto seeni seeni seeni seeni bëgg-bëgg suñu ko xamee wëlbati ko xool nu leen dimbale loolu nag xale yi sax léegi ñoom ñoo ko yor waaye maa ngi gis ne ñu ngi ciy yëngu bu baax aussi ba pare ñu koy gën a yaatal daal 2009 la woon dañ ko créé woon mais gis naa ne que nit ñi bëgg nañu ko même soo demee defe naa ci Facebook bi tey jii am na plus de 62 000 adhérents mais ñooñu ñëpp aussi ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey mais mission première ou fondation bi nag mooy fexe ba roof ci nit ñi ñuy julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne nit ki suñu demee ba jiiñ la soppee yonent bi alayhi salatu wasalam jox nañ la grade bi gën a kawe ci peeyu suñu borom ndax ku bëgg yonent bi alayhi salatu wasalam rek yaakaar naa ne suñu borom bëgg la comme ni mu ko diglee ci alquran nee na sooy ma bëggee topp dëgg dëgg topp leen gën yi ngir sallallahu alayhi wa sallam. lu waral cheikh bi ciblé jeunes yi nga xamante ne de quinze ans à trente ans moom la cheikh bi ciblé pour ni def leen di éduquer daf leen di teg ci yoon bi lu waral boobu choix. waaw ñoom sax maanaam cible wu ma leen mais yow soo xoolee bu baax sax jigéen ñi sax la la yàlla gën a booleel. Hmm. que que góor ñi parce que ñoom xëy na yàlla def na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu njëkkee génn ci xuntu xiira di di demaat pour uti lu ñuy mel ni refuge. gis nañu ne dafa dem fekki na Khadija moom la jëkk dajal soxna Khadija moo dalal gën ji mbindéef loolu dafay wane importance su jigéen ci dundu góor tant que la femme elle est au devant de de de l'action de l'homme li nga xamante ne moom la nit bëgg góor ku góor bëgg a def yàlla daf koy barkeel soo xoolee tey jii ci àdduna bi am na sax d'ailleurs benn euh, benn citation bunyi ñuy wax ne que derrière tout grand homme ya a une grande dame tam waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam parce que gis nañu ne Khadija bi mu nekkee ak gën gi mindeef jamono li li li gënoon yéem nit ñi mooy jàpp bi Khadija jàpp gën gi mindeef too bàyyi ndax li ko waral ñaari fànn le benn bi mooy ngëm gi nekkoon ci soxna Khadija d'abord ñaareel bi mooy pas-pas bi nekkoon ci moom ñaar yooyu yëpp mu jël jox ko gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam moo tax kenn mosul découragé Khadija wala kenn mësul wax Khadija li tax mu dellu ginnaaw ci yonent bi alayhi salaatu wa ndax engagement bi bi nekkoon ci moom dafa dem ba seey ci ngëm bi moo tax mënu woon dellu ginnaaw ci gën ji mindeef jigéen ñi nag soo xoolee aussi suñu jamono ji ñu nekk aussi góor buy yëngu su fekkee jigéen ñi ñoo ko wër mission bi am na fu mu jëm dina bëri coow nag na bëri coow mais eh, mission am fa mu jëm te ci ndam lay doon ndax ni yàlla teralee jigéen. dëgg la bi nga nekkee prison bi nga déggee dese Aïssatou Ba euh, juge bi loolu nun la def seex bi. waaw kooku événement ci sama dund ndax bi suma grande sœur la euh, maa ngi lay remercier sax ci laaj bi moo ko laaj moom yàlla dafa ma boole woon ak moom suma yaay ak yaayam ñu bokk ndey mais <clears throat> bi mu amee quelques mois lañ ko jox suma yaay. mu mu yor ko ba ni mu jàngee ni mu amee ay diplôme ba nekk magistrat yàlla def aussi ba dàqoon ko lool lool lool lool mu amul suma kersa nag ba pare doon méttit lu aussi li ma nekkoon ci kaso bi mais dama ko demandé woon bi may doog a dugg ci kaso bi ma wax ko ne dama lay ñaan daal bu ma defal intervention na nga bàyyi noonu rek yoon def liggéeyam xam naa ne yàlla moo ma indi fii bis bu ko jeexalee dina ko dina ko jeex faf yàlla def li gën di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko fi mu nekk mu gënal ko fi mu jógee sëñ bi sa diggante ak sëriñ Fallou Mbacke borom fondation Assur Global Media mm-hmm. moom mm-hmm. suma rakk la waaw suma rakk la suma xarit la aussi am nañu relation yu kawe aussi de rakk ak xarit dëgg waaw rakk ak mag ah, ñu dégg ci interview mu ni mosoo ko pour affaire liggéey wala mu weddi loolu léegi bëggoon nga leeral ñu tuuti ci loolu. loolu sax moom waxoon nañu ma ko mais dama yaakaar ne xam nga jamono ji yëngu woon na te bateau su nekkee ci ndox euh, vraiment mu mel ni luy waaju kule kenn ku ne da ngay xool noo noo noo muccee waaye pour man. <laughs> amul solo daal amul solo moom su ma rakk la daal su ma rakk la loolu. démb rek démb rek ñëw na seet si. chef bi bi mu est ce que am di jàmm mi nit yi proche mi mu amoon ce que doon na leen gis ñu koy seet si di ko nemmeeku ak di ko taxaw wala bi nga foofu sa am di jàmm mi dañu wàññi. ah non non soo ko xoolee sax nga xam ne que euh, euh, sympathie bi ñu am ci réew mi dafa dafa yokk ci nit ñoo xam ne ñun xamuñu leen woon sax wala ñu xamoon ñu ba pare gisuñu woon waaye. bi ñu nekkee ci kaso bi vraiment nit ñi xëy na naqarlu nañ ko comme ñi ñi fa yeneen détenu yi nekkee rek nit ñi daan nañ ñëw aussi daan nañ ñëw ba may gis ñoo xam ne mosuma leen woon gis ñu am cofeel bu rëy ci ñun mais comme ñun dañu jëloon kaso bi nag ak philosophie bi nit ñi ñëwee suñu nee jàkk rek ñu ñoo leen di dëfal dëfal leen ba suñu génnee dañu am mbégte ñëwaat seet si ñu wala ñu dem waxal ñeneen ba ñu am mbégte aussi ñëw seet si kaso bi daal yi rek moo fa ci yow kon mën nañ ni jaar jaar boobu cheikh bi amoon ah, terewul ay benn pas-pas lañ am mooy yonent bi alayhi salatu wasalam yonent bi du jeex fi mu jógee du jeex fi mu jëm du jeex ñun duñu ci dara bu ndaw lañ ci ci tagg yonent bi alayhi salatu wasalam ñoo ñu àndaloon aussi ñi eggale liggéey bi rek tagg yonent bi alayhi salatu lañ Tara yàlla bi fu mu jógee nit ñi ñoo ko bàkkee wala yow ko jël tafa ko ak sa tur. waaw de moom jamono dina ñu ko. mais ko ñu gis ni itam euh, maamam mu xaddam la woon ci côté Futur. Legi lu yow mënoo di jël titre di ko di ci nit ñi ñu gis ni cheikh bi dafa wàccee boppam. waaw wax naa la ne la man serviteur ñi ci man. te serviteur la su fekkee dafay aju ca kaw dootul serviteur mm-hmm. te man maay seen serviteur man maa ci man maa ci gi gën a ki ci gën a néewle ci ñi ñëw fii moo tax loolu moo war ma war a nekk seen i biir di xool seen i bëgg-bëgg di dox ca loolu moo waral aussi saa yi may may bind su ma bindee jiital jiitu ci tàgg bi moo waral aussi euh, euh, saa yu aajo amee wala soxla wala ñu am lu ñu war a yëngu ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma taxawee féete kanam takk sama ndigg ànd ak ñoom ci liggéey bi lii rek la. kon mën nañ ne cheikh bi commencé woon na ak ay ak ay taalibeem. activité bi nga mosul taxaw ma nekkee ci kaso bi sax la wàllu ay parce que man fu ma nekk rek fu ma nekk ngi tagg yeneen ci biir saatu sax muy kaso xam nga kaso bi benn benn benn délimitation géographique la mais loolu mooy suñu univers ñun mais ba léegi maa ngi ci univers yàlla parce que fa ma nekkoon aussi ci ay doomu.